teewaayu sargal nit ku màgg nit ku suñu borom màggal nit koo xam ni njariñam pour askan soo koy wax sa xëy na nit ñi dinañu xaw a jaaxle nit ku am njariñ ci askanam nit ku laabiir nit ku baax nit ku xam lan mooy nit xeex na àddinaam yépp pour nit am ay axam ak ay yelleefam ndax nitu ax ak yelleef la woon nitu démocratie la woon dañu koy ñaanal yàlla yóbbu ko ci àjjana ya gën a kawe ñuy présenter nag condoléance famille am di ko présenter peuple sénégalais askan wi yëpp ci àddina bi ñu koy présenter les condoléances. ban xam nga dañu daan dem toujours ci këram 2000 avant 2012. pour préparer élection yi këram lañ daan réunir bu ñu ñëwee lu nekk dinañu ko tegal pour saral lañ suñu xol ñëpp dañ daan ñëw spontanément toog di waxtaan pour xool fan la ñu war a jaar yan stratégie lañu ñu war a adopté pour gagner élection yi kon boo koo xam ni wax dëgg yàlla ah ñun de dañuy wax ni suñu xarit la woon suñu am di jàmm la woon suñu nit la woon jërëjëf merci merci beaucoup